Euh, président Doudou Wade ci élection yi ñu jàppoon ni ak fitna gi ñu ci doon dégg xëy na fii duñ fi egsi mu nekk loo xam ne dund nañ ko est-ce que lu mel noonu ci sa expérience euh, joxe na ci dëgg benn jurisprudence boo xam ni euh, fekkee nga ko mais ban gis-gis nga am ci lu mel noonu ci réero ak coow li nga xam ni amoon na ci lu jiitu ñuy dem ni ci campagne électorale. xam nga ci diggante boo dafa am ñaari affaire yu rëy yu ci am. Mhm. ci problème conseil constitutionnel te Moustapha wax na ko. Mhm. duma ñëw ci dàq élection parce que pour man bu nit toogee naan ma dàq élection wala ma koy wax Moustapha Moustapha di ko déglu war nañu ne ngoonte bon ñun suñu jaar assemblée amul yoon. Mm, mm-hmm. du dëgg. Mm-hmm. dafa mel ne kenn ñëw nañu léegi dafay dem màkk màkkaa nga dund baaba jéey mm-hmm. mu nekk donc yooyu duma ci taxaw mais li am ba am ci conseil constitutionnel dafa am ay problèmes yu bari yoo xam ne am na te conseil constitutionnel mën na wax lii situation ñëwaat mu wax leneen Mm-hmm. est-ce que nekkoon na situation wax leneen parce que code électoral bi aussi bind na foo xam ne dafay wax ne les listes les listes les listes proportionnelles et majoritaires. mooy benn la am na foo xam ne fii dafay wax les listes. Uh-huh. la liste majoritaire. Ah, et la liste proportionnelle. d'accord mooy séparé na leen. waaw loolu xam nga nag. Mm-hmm. am na ay jàngkat yoo xam ne bu ñu waxee il foog nga déglu leen. Mm-hmm. professeur Ibrahima Fall bind na ci bind mu rëy a rëy. te waxam bariwul. ñeneen ñi am na ñu waxul te am xam-xam lool da nga koy te mais conseil constitutionnel mën na wax wax leneen. Mhm. parce que conseil constitutionnel ci boppam moo waxoon ci ay jamono ne kenn amatul droit di wàññi walla di yokk mandat walla dure de mandat bi nga xam ne xam nga yow bi ngay falu ñaata la. xam nga lu tax mu doon tontu noonu parce que mooy référendum bi ba ñu bëggee wàññi juróom-ñaari fa la ko ci benn considérant mu nga fa. moonte bon dootuma wax ay 2024 ku war a ñëw ku warul ñëw mais li ma la yëga rek mooy parité. mais am na loo sa sërxal de te loolu c'est important. <laughs> nga ni 2024 nga ni dafa am loo wax loo xam bëgg na ma ñu taxaw si. parce que dafa conseil conseil moo ne. waaw dégg naa la mandat mandat waaw. noonu mën naa la wax lu gàtt lu gàtt li gën a gàtt. waaw ci 2024 dafa am loo ci ju warul mën a nekk candidat ci 2024. d'accord. c'est ça loolu laa bëggoon dégg. bu fekkoon ne ay waxoon nopp doy nañu. Mhm. ñu jàpp ko. Mhm. mais te te dama bëggul nekk ci dellu si waat affaire. d'accord léegi mais boo xam ma jël waxu Idrissa Seck. Mhm. mais ànd ak moom tey wala di moom bu moo tax ñoom waxal nañ ko ko ba pare. d'accord kii waxal na ko ñëpp wax ko ko. ñu daal moo tax na. d'accord dafa mel ni waxu assemblée na baax na kii moom la mu wax ci assemblée bi la mu bëggoon ci 2012 amu ko. te moom xam na ne 2013 bii 13e bi moo 2012 a ko gën ngoonte gënantee fi nekk ngoonte gën ki gën mooy gën kookoo gën a bon nañ jàpp ñeneen ñi baax na parce que nag 15 fautes moo gën 25 fautes am mais zéro faute la nit ñi te amuñu ko wax ji fee donc yeew bi ak ak loolu yëpp mooy liste yi man li ma jàppoon bi ma gisee Sonko génn ma liir ko def ndànk parce que photo la rek ak ay pii ak ay picc yu ñoo ne ma xool ba yooyu moom ci boppam mu wax ne seen list baaxul ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg man bu ma toogee ne sama xarum tabaski baaxul defe naa ne Jean Pierre nit Gomis mais mënu ko régler bu ma bu ma bëggee wax ne baax na maa ngi nax sama bopp loolu c'est clair mais conseil constitutionnel moo nekkul ci rôlam te pap seen émission fii laa ne gis naa man benn image bu ma neexul ci démocratie sénégalaise ci prestation serment Macky Sall ndax la mu defoon teg président conseil constitutionnel mu pare di dem mu ne ko nii gars yi daf ko ne ko kaay yu mu bul ko bunt bi ñu jàll mu ànd ak moom palais ci bésu prestation de président tribunal bu àtte ba pare jox kenn dëgg ka mu àndal ka mu jox dëgg yëpp ko ci oto ñu dem seen kër ma ne ñii bu ñu bu ko waxul dara jox na ko dara wala mu def ko ñaar yëpp conseil constitutionnel moo nekk si sunu bopp moom la ñu wóolootul xam nga boo ragalee nit ragal nit ba nga xam ne ni ganaar ragale ceeli mhm. ba mu nekkee xale la conseil constitutionnel ci mu toll nii ci atte am na lu mu atte dëgg la dañ koy nangu parce que dafa togg ci ñun kenn mënu ko dindi. Mm-hmm. amul recours dafay imposer wu à ñëpp dem nañ sax ba ñu bindaat téere bi conseil constitutionnel bi ne avis sax boo ko ko laajee décision la. Mm-hmm. te kat xam nga ko wax. loolu dund nañ ko. est ce que xam nga Ismaïla Madior ban téere la bind. Mm-hmm. xaw ma dëggam ngeen ko mu déet. les décisions et avis du conseil constitutionnel bind ci téere décision. ak avis conseil constitutionnel mu dellu si ne la benn la moo lay wane donc ñun problème yooyu ñu am moo tax suñu bët day lëndëm du ñu woolu kenn nga defee nag lépp xeex a ko yor te xeex bi du atte dara mais ñi jóg di xeex buñ leen blâmer ci noonu nañu fexe nañu mën a comprendre pour daje ci lenn loo xam ne lépp d'accord nañu ne bon na ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dindi ko bi ci des parité bi la parité bi dafa leer parité bi ñun ñoo ko indi conseil constitutionnel sax weddi nañ ci. Mhm. Mhm. Mhm. ci décision boo xam ne bi c'est la décision de Aminata Mbengue Ndiaye et autres. te ñoom ñoo chanté après euh, euh, parité bi président Macky Sall wax na ci France Inter man ki ko doon wax la sax ma tiit ak li mu wax mais dafa ñoom amuñu problème mu parité problème mu position la ñu am. Oh <laughs> juxtaposition ligne laa ngay virgule. Euh, parité bi dañ ne dañuy tegloo. dañuy teg leen ñoom dañu bëgg a expliquer rek seen nombre yi mat na ko mais par exemple góor ñi mat na jigéen ñi mat na mais bi du loolu. xam nga alternativement. waay boo ko bëggee wax ci waxu ñoo xam ne ñu yaruwuñu da nga naan góor du sës góor jigéen du sës jigéen. Mhm. wax ji jeex donc moo lay wan ne am nañu problème ak conseil lu ñu def dañuy dem élection. Mhm. parce que il faut que nit ñi dem élection. Mhm. dem élection moo ñuy jariñ. nañu ñaan élection yi am ci jàmm. Euh, mais ku koy jëm war ngay pour nga ba am jàmm il faut ngay séntu toujours ay bi pour man ko fay. Mhm. mais diggante bi ñuy jëm nii des na une semaine dernière semaine bi lay gën a tàng jour yi élection ñëpp jóg nag tàng tàng tàng bi nag baxa ci teg. Mhm. moo tax bon ku ci nekk ci ñun ñëpp war nañu taxaw ci seet naka la ñuy def pour des élections apaisées. yàlla nag mën na lu nekk. waaw mais mën nañ ci am njort nag comme ñëpp accepté nañ dem ci ay élection parce que pexe amu ci euh, ñëpp accepté nañu parce que bu ñu fàtte ni yeewi bi ñu taxawee ni dañuy dem par force ak seen liste titulaire président de la république dañu élection dina am te ba ñu egg ca mu nekkoon ñaari wax yoo xam ne ku nekk wax na ko tey génn nañu ci loolu ba ñu ngi jëm ci ci ci ay élection mooy ponk boo xam ne tam mën nañ ko topp di ci wax mais comme dama bëgg ñu dem ci benn ponk bu mujj rek s'il vous plaît mooy léegi ban assemblée ngay xaar ci quatorzième législature bi lan nga ciy xaar ci loo xam ne vraiment bëgg nga ko ci am bëgg nga ko ci gis mu nekk mu nekk mandarga bu rafet bu baax pour suñu démocratie pour suñu assemblée. Euh, dama may assemblée boo xam ne li ko constitution bi sant. rawatina ci contrôle l'action du gouvernement. ak évaluer les politiques publiques jox nañu ko jumtukaay guñ ko mën a gum ko mën a defee. parce que loolu mooy rôle yi gën a mag léegi ci assemblée yu bees parce que wote loi moom ku ne mën waaye nag contrôler l'action du gouvernement maanaam boo wootee budget bi nga topp ko ba xam fu mu maanaam fan lañ ko dugal xool ba xam fañ ko dugal ndax amal na njariñ askan wala amal njariñ loolu dafa laaj technicité mhm. te assemblée nationale joxuñu ko jumtukaay googu mhm. mooy li président wax sànq dañoo bind ci réglementaire bi la l'assemblée peu maanaam mën naa wuti ay ay assistant parlementaire déedéet dañoo war a def dafa war nekk obligation mhm. parce que Pape Ngagne président de la li Macky Sall mais pour mu mën a liggéey il a il lui faut un gouvernement. Mhm. premier ministre ak i ministre yemul foofu il a cent cinquante mille fonctionnaires à sa disposition. Mhm. député bi ñu yóbbu ko assemblée moom képp ku jubbam. bu ñu ñëwee commission ministère bi day ànd ak gàngoor mhm. ay directeurs yi conseil cadre. tout à fait loolu la ñuy gis waaw Pape Simi dafa am dafa am maanaam dafa dafa safaanoo googu. dafay tax député bi du mën a def liggéeyam. Mm-hmm. moo tax maa ci reviens encore sur ma proposition. Mm-hmm. cour cour cour des comptes. Mm-hmm. IGE ñu génne ko palais. cour euh, commission nationale d'évaluation des publics ñu génne ko palais créer benn structure mu bees. teg ko ci jébbal ko assemblée nationale muy jàppale liggéey député ko seen liggéey. parce que nag constitution bu Sénégal moom. assemblée dong la sant. mu contrôler l'action du gouvernement. assemblée dong la sant mu évaluer les politiques sant ko président jàpp naa ne aussi Pape boo demee dans tous les départements du Sénégal. da nga fa fekk sous-préfet ak préfet wala région gouverneur. Mhm. as bu dee magistrature tribunal da nga fa fekk ay tribunaux bu dee pouvoir judiciaire. assemblée rek mooy institution boo xam ne doo fekk lennam fenn ci biir région yi biir département yi. Mhm. ma tax ma jàpp ne pour yombal liggéey député yi seen liggéey war na nañoo def dans les quarante six départements des permanences parlementaires. Mhm. yoo xam ne député bi dañ ko fa wutal boroomi xam bu fa nekkul nit ñi ñëw. di ko wax seen soxla. bu demee assemblée nationale bu demee assemblée mën koo jël. c'est important parce que loolu li ciy am njëriñ mooy tey boo nekkee député dëkk mettons Touba wala feneen boo ñëwee boo ñëwee def euh, liggéey daa def ci weekend bi sa kër ngay toog. Mm-hmm. ñi nga faral rek ñoo ñëw di la seet. d'accord alors que bu nekkee day permanence parlementaire muy kër goo xam ne këru député yi la. ki nga xam ne moom def la compte bu amee soxla ci yow mën naa ñëw foofu wax la soxla. d'accord et je crois que yu mel noonu ay ak yeneen mesures yoo xam ne bu ñu ko jëlee. merci dana tax xar kanamu assemblée soppeeku parce que nag Pape bu la béy ba nga def sab sondage boo laajoon sénégalais boo laaj quatre-vingt-dix-neuf pour cent des ndax seen xol seet na ci seen assemblée. dañ naan la ah, déedéet loolu kay moom loolu moom c'est vrai alors euh, président si loolu bëgg naa ci am sa xalaat mais bëgg naa am aussi sa xalaat ci est-ce que suivre nga juróom-ñetti candidats yi seen discours seen discours ci juróom-benni fani campagne yi nga xam ne def nañ ko. waaw ah, li ci gàttal déglu naa leen. waaw ñu ngi ci ay autopont. Hmm. ay pont ay stade. ah bon waaw ay xanaa kon ñoom ñu ngi juum de ah. mais dañu nërmeelu ah oui parce que député yombul xam nga nekk ministre moo gën a yomb nekk député absolument d'ailleurs gis nga ministre yi dem gouvernement après dem assemblée boo leen gisee da leen di xàmmee dañuy wuteek ñooñu nekkul ci agrégation mm-hmm. d'abord bëgg liggéey la mm-hmm. ut xam-xam la taxawaay la tous les jours mm-hmm. donc mënuma euh, gisuma gisuma gis naa ay esquisse Mm-hmm. wax naa la ko léegi ñun ba 1978 dañu am manifeste législative pour la législature. Mm-hmm. moom moom xam na ko. li ngay dégg nii yëpp ba ñuy ñëwee ñun li ñuy jëkk a def mooy modifier mm-hmm. le règlement intérieur commencer jox place les vice présidents. boobu temps am na moment boo xam ne assemblée bi quatre vice président la amoon. te nañ leen di fale sax du benn parce que ñaar ñi njëkk yi. dañ leen joxoon ay ay ay institut spécial dañ ñoom dañ leen di fal uninominalement. ci tur ak tur ñi si des la ñuy boole list bon mais passons li am ba am nag mooy li nga xam ne fi ñu jëm bi ñu jëm nii d'abord man dama gëmul diggante 31 juillet <laughs> ak les élections présidentielles de février 2024 assemblée bi mu gis am capacité def liggéey buy feeñ mm-hmm. parce que pour man teel naa ko wax premier décembre laa ko wax ba ñuy installé suñu parti ma ne assemblée bi ngeen jëm normalement gudd fanam yëpp yëpp yëpp yëpp ñaari la war a doon ci dissolution la jëm. ndax ku falu da ko fiy jëlee. waaw. maintenant naka lañ koy defaree ba yéen ñëpp ngeen am ci cër mooy candidat yi ma gisoon ne ñoom ñëpp candidat lañu pour nekk élection présidentielle pour dem ko ñoom dama jàppoon na ñoom dañu war a dem assemblée. xam nga bu ko defee lu ñuy def. Mhm. ñoom ñooy tabax seen loi bi mettre en vigueur à partir de deux mille vingt quatre. Mhm. ca la ñuy war a wax ne est-ce que présidence de la république war na nekk siège u parti. Mhm. ca la ñu war a wax ne fonds politique yi naka lañ koy xoolee. fonds politique yi ñuy nëbb yu nekk ci institution yi naka lañ koy def ndax dina feeñ wala du feeñ. effectif yi nekk ci assemblée ñu leen di fay ci institut cent 400 cent personnes fu ñu nekk. merci. statut chef de l'État. Mhm. merci 2024 bu ñuy dem élection législative. naka mhm. lañ fay demee. scrutin uninominal. Mhm. changer circonscription dëkk bu nekk benn député ngay am. góor wala jigéen. d'accord ñu ne Papa Ngagne. merci ak ak ki ak ki ñoo koy xëccoo ñu xam leen. lan mooy statut de position bi haute cour de justice. min amul njariñ jërëjëf nañ ko fi génne mais ñu seet naka la ñuy dàq aussi député bu liggéeyul député bu liggéeyul ñu mhm. ngi koy dàq matuwaay lañ ko mën a teg maison des députés la wax mooy permanence bi ci 46 départements au lieu ngay seeti papa ngañ këram jabaram nekku fi gardien bi fa permanence bi na dem fa muy fekk fañ koy soxla mu fekke ko donc diggante bi uh-huh. li fi nekk uh-huh. mooy préparer ay loi yoo xam ne 2024 chef de l'état bi ñëw uh-huh. bu ñëwee boppam te loolu changé du ko changé boppam. jërëjëf merci beaucoup Wade jërëjëf Moustapha Diakhaté bëggoon naa ñu gën a yaatal euh, émission bi waaye am na yeneen programme yu ci tegu ma bàyyi la rek Moustapha bu fekkee am nga. message euh, boo ci mooy discours yi moom koy déglu moom. parce que man moom ah, damay jël sama temps damay déglu les trans horaires yu RTS yi di lire di déglu mais fondamentalement mhm. euh, booy déglu da ngay jàpp ne ñi bëgg a dem assemblée nationale xamuñu fu ñu jëm. ah loolu doy na waar. xamuñu fu ñu jëm. c'est-à-dire que Pape Ngagne les partis ne à l' exception de Aar Sénégal. Ah kenn tegagu ci taabal ji lu ñu mën a tuddee programme. Mhm. léegi nag am na beneen nax bu dugg ci biir. Mhm. ñàkk programme tax na ñu bëgg a def élection législative un référendum pour le contre de troisième mandat loolu sax moom ñàkk respecté constitution mooy tax nga bëgg ko def euh, référendum. Mhm. parce que pour man la question du troisième mandat est réglée. et par la constitution et par Macky Sall. c' est pas aux populations de le régler le 31 décembre. bu fekkee lii xeeñ mhm. lii lii bax nii mooy xeeñ doo mhm. mën assemblée nationale dana nekk une assemblée de qualité avec ces avec la listes là jërëjëf merci beaucoup président Doudou ah, man man lay gërëm Pape encore ci ci ci façon bi et nag ñu jàpp seetlu naa ne ren ci législative yi mhm. rajo yi ñu ngi commencé intéressé wu ci lan la lan la député yi war a def am na ñoo xam ne sax ñu ngi liggéey ci lexique naan lan mooy session xam nga 1960 ba léegi. Mhm. bu ñu amee ay nit politique yoo xam ne dem nañu baccalauréat dem université def droit ñuy laaj lan mooy session ak lan mooy ordonnance ak lan mooy résolution moo lay wane ngoonte woon ijji bi. Mhm. desoon na. loolu dañ ciy gërëm da ci gërëm presse bi di ci gërëm aussi lu mel nii di wax ne les secrétaires généraux de parti la mhm. ak les anciens ministre là et les nouveaux ministres nañ leen di woo ci débat yi ñu nangu ci ñëw. parce que ñun ñi nga xam ne dañu liggéey ci état bi. Ah, mais ñu ngi leen di woo de te kenn kontaanul. Mhm. war nañu xam lañ la ca yàqu. Mhm. ñun xanaa war nañoo mën a xam la koy defar. dëgg moo tax il faut que tamit ngeen ñuy woo. Mhm. ci lii naka lañ koy defaree. dëgg mais critique moom ñëpp d'accord nañ ne. assemblée bi moom diggante 2012 ak léegi day gën a bon te man jàpp naa ne bii di ñëw mooy yées. am nag dama lay gërëm ndax danga maa may lu rëy a rëy. jërëjëf. mooy li ma booleek moom. waaw ah, très ndax sama mag la ma def ko mag. mu def ma rak kenn bi ñu ma désigné président de groupe. ñoom ñu doon a jóge assemblée nag këram laa yendu. fa laa ndékkee añee fa jogani ko fa. pour mu niital ma fi may teg sama tànk bu ñëwee assemblée nationale. lan ma waxoon lépp laa gis. loolu li muy tekki mooy dafa yéwén. grand frère xam nga lan laa bëgg nga def ko nag nga bind un livre sur la sur la assemblée national seen soxla nañ ko. journalistes yi soxla nañ ko. politiciens yi soxla nañ ko ba ñu xam lan mooy assemblée nationale expérience bi nga ci am connaissance bi nga ci boo ko bindul danga am am sénégalais yi président looy tontu ci loolu Doudou Wade bind ko président Doudou Wade looy tontu ci loolu demande bi yàlla na yàlla def mu am am naa yéene bi amiin yaa rabbal aalamiin am naa yéene bi parce que daf ma tiital parce que dama ci waxtaan ak Madia Diop